question est-ce que mën nga tey ci jàng yi xamante ne euh, dañ koy organiser fii ci euh, Gossas yéen tey ngeen yore waañ waaw waañ wi ñu yor tey ci jàng yi ku ma ko laaj dinaa ci sawar a wax ginnaaw bañ sante yàlla junni ci yonent bi dañuy ñaanal sunu yaay di ñaanal sunu baay yàlla xare leen àjjana di ñaanal nag sunu yaay bu baax a baax a baax a baax ndax lépp moom la fii lu fi nekk rek awa yombe la ndax moo jur papalaam moo ñu liggéeyal suñu kër bàyyi ba papalaam lu mu bëgg ci ay moroomam am ko lu mu woote yàlla réussiral ko lépp liggéeyu nday la ku sa nay liggéey loo woote ci sa mbooloo day réussir ñuy ñaanal nag papalaam bu baax lépp lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw seetaanul mbokk seetaanul jàmbur am na ci mbokkam yërmande am na ci jàmbur yërmande man de may rakam maa gën a nekk xale ci seen kër maay caat waaye dara ump ma lu muy def dana ma programme mako yor léppam mako yor su nga ko wowon tay ji nako dama bëgg nga taxaw fi télé team la nga waxit mu ne wowalé len ma assalam mu ñew wax kon ko mag ju bax la mënuma fay dama koy ak yalla yalla fayal ma dem na màkk way yalla nañ ko teeruwaat màkk di gëreum rakam bu goor bu top ci mom di baralam soxnam tok ni ñu yërëm ma nag yirma jappalé ma côté bu ne nak jappalé nañ ma fa bëgguñu ma sama benn yoon sama rongañ toq bëgguñu benn yoon samay moroom raw ma bëgguñu benn yoon sama benn sama benn noon reetaan ma fu nu toll rek ñu ngi ci man jàng yi nag dana neex dina réussir ndax waa kër Serigne ñoom lañ yaakaar sañ Cheikh Abdou Mbacké waa kër Serigne la muy sunu sëriñ baayam doonoon sunu sëriñu baay moom muy sunu sëriñ ñu woo ko ci jàng yi mu war a ñëw nag jàngkat yëpp war a ñëw soxna yi war a ñëw baay faal yi war a ñëw ñëpp war a ñëw may ñaanal nag waa koñ bi ñëpp parce que lu nu def ñoom ña nga lu nu sóob ñu dëbbale nu ko programme bu pablam am ña nga ca ma di leen ñaanal yàlla nañu gudd fan ñuy mën di defi programme ñuy ñëw diñ ci diñ ci jàppale ci kàttan ak sëriñ Bamba kenn képp ku fi sonn rek yàlla na yàlla na la yàlla fajal sa coono ci darajey Mouhamed ci barke màggal gi ñu fi woote pablam gërëm naa ko sant naa ko ñaanal naa ko lépp lu mu bëgg ren yàlla na bëgg déwén lu ko raw yàlla ko yàlla yóbbuwaat màkka ci darajey Mouhamed yàlla na toog ba Ndaga Jaw beneen biye màkka bi des Ndaga Jaw yóbbu ko ci darajey Mouhamed kontaan naa ci moom kontaana ci bis bi kontaan waa dëkk bi wasalaam wax nga Pape euh, ku wax Pape Lam tey tudd euh, président Macky tudd aussi Cheikh Kanté directeur général bu poor waaye tamit euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne nekk kilifa fii ci Gossas li ni mel seen relation lan nga ciy àddu Mouhamed Boun Abdallah Dionne damay sawar ci moom yaatu ci moom parce que Mahammed Boun Abdallah jonn dafa nekk ci nguuru Macky Sall waaye avant nguur mbokk moo jiitu sama mag baaralaam mi ma mujj mi may mujjee tudd maamoom Mahammed jonn moom lañ ko tuddee Mouhamed Dione doon ministre nag nekk Gossas dañu liggéeyal Gossas ku ñëw Gossas bu njëkk ñëw Gossas bu mujj xam ne Mouhamed Dione mi ngi ci mi ngi def mi ngi bay waaram bu baaxa a baax ñu koy ñaanal nag gouvernement Macky Sall bii yàlla na ko ci yàlla jox ndomb gu gën a kawe premier ministre bii mu nekkoon mu dem ba nekk lu gën a kawe président wedd bëgguñu Macky Sall wàcc waaye président ku ci nekk bu yàggee da ngay wàcc waaye bu wàccee yàlla na ko Mouhamed Dione remplacé ndax Mouhamed Dione defar na Gossas kontaan nañ ci moom Macky Sall nag digganteem ak papalam démb la du tey ndax ba ñuy ànd ñoom ñaar booba Macky Sall doonagu noon président ñoom ñaar ñuy ànd yàlla boole leen ñuy ànd tey ba mu nekk président ñu kontaan ci moom nag kontaan nañ ci moom parce que yëg na Pape Lam yëg na Pape leer na dëkk bépp keroog ba sama yaay gaañoo délégation bu mag la def ñu ñëw jaala si Pape loolu yëg-yëg la munoon naa doon président fàtte ko Cheikh Kanté nag coow lépp moom la moom coow lépp moom la mooy jox Pape ay millions te du ko contrôler mooy woo papalam diko di ko yónni fii ba France te du ko moy mooy woo diko yoni di ko yónni Makka te du ko kon Cheikh Kanté lu papalam mom mën moom moo tax. dëgg la nag Macky moo falu Cheikh Kanté nekk ci ah waaye Cheikh Kanté nag mooy Cheikh Kanté mu papalaam Cheikh Kanté papalaam yàlla moo leen boole boo leen fekkee ñoom ñaani toog wala nga xool seen photo da nga yaakaar na ñoo bokk ndey ak baay kon yàlla moo mën loolu moo leen boole ñu nuroo moo leen boole ñu bokk jikko moo leen boole ñu moo ñu bokk lépp ndax papalaam lu nekk ci loxoom nita ko ci bàyyi Cheikh Kanté lu nekk ci loxoom nita ci bàyyi ñoom ñaar nag li leen di ñaanal mooy yàlla na leen yàlla lafal cat saytaane ba ñu dox seen diggante ndax àdduna saytaane dafay bari waaye yàlla na leen yàlla lafal cat saytaane ba ñu dox seen dundu Cheikh Kanté ñewnu fi sama yaay wax ko ko ne ko sama doom ji góor ji dama la ko denk politique bu mu len bolé bu politique jexé sax sa mbokk la sa mag la sa rak la dama la ko denk yeen ñaan na ngeen and kon yalla na yalla andalé yalla ju bolé len nguuru Macky Sall gi yalla na amaat benen mandat amaat benen mandat amaat benen mandat Macky Sall mo défar dëkk bi barki Rasulullah ku ci nekk nak nit ku nekk nitam gossas gi eh, eh, wer salaire yi fi fay juróomi junni yi kenn liggéeyul am pa ñëpp a koy fayeku ku ko fayeekuwul na wax ku ne yaa ngi fayeeku ko fayeekuwul ceeb yaa ngi ñu ngi lay jox ravitaillement wala ñu jox la ñetti saako ceeb parweer weer dundu at lañ lay jox kon Macky Sall defar na Gossas diggante Fatick ak Gossas benn la waaye moom jàpp na ni Fatick Gossas mooy Fatick jàppale na Mouhamed Boun Abdallah Dionne jàppale na sama mag papalaam kontaan naa barke Serigne Touba Mbacke yàlla bu nguur gi yem fii yàlla na ñam ay mandat ay ci darajee Mouhamed ci barke màggal gi ñuy def fàttali ñu tur bi. waaw Adama Faye. Adama Faye waaw. Euh, tey euh, bisu màggal la. waaw bisu bisu gàmm la. waaw ki nekk ci bopp bi euh, tey yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci Pape Lam ak njabootam. xanaa di sant yàlla ak yonent bi di sant yàlla di sant yonent bi sant xale yi ndax maag seen yaay nekkoon ca kër ga. te papa Lam mi nga xam ne maag yaayam a nekkoon ca kër ga ba woorelewu maag yaayam papa Lam lépp lu mu daan defal yaayam su ma gisee defal ma ko lépp lu mu daan waxal yaayam su ma ko lu ma ko tere papa dina bàyyi loolu lu ma ko sant papa dina def loolu maa ngi koy gërëm te di ko sant man nag maa dis ca kër ga waaye fàttewuñ ma benn yoon benn yoon fàttewuñ ma ko ñu ngi ci di ma defal lu ne maa ngi leen di gërëm te di leen sant te di leen ñaanal yal na leen yàlla ak sëriñ Fallou Mbacké yiir yiir mboolem jullit ak jullit bu nu bokkal yéene barke sëñ Fallou lépp lu ñu soxla ren ba déwén yal na ko sëñ Touba def yàlla mi nga xam ne moo mën a maye yal na leen may lu ne gàññ ak mboolem jullit bu nu àndal barke sëñ Fallou gërëm naa leen sant naa leen aw ma ñoom benn xaar ma yàlla. aw ndax dañuy ñëw ca kër gi di wax ak samay gune man ma samay gune gën a gune ñoo gën a di gune ca kër ga waaye dañuy ñëw di wax ak ñoom di def ak ñoom di lijjantente ak ñoom amuñu ak ñoom benn xaar ma yàlla papalaam nag moom kenn kenn mënu koo fay waaye nag dañ koy baag yàlla. dañuy fàttali tur bi man la faat laam yaxalaam yaxalaam di rakk ci paab laam mhm. suñu baay yi bokk. Pablaam na seetaanu dara jooyuñu ñu leen nax Pablaam su suñu bët xonkee rek suñ demee Pablaam defar ko Pablaam day defar mbokkam asema jàmbur man laam ginnaaw yàlla sama sëy bee Pablaam moo ma ci jàppale ma koy sant di ko gërëm ndax bi mu nekkee si nguur gi mënoon naa gis boppam mënoon naa fàtte ay mbokkam waaye dafa defar ay mbokkam lam leen war a defar lépp soog cee def jàmbur yi Pablam ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm fii mu nekk yàlla na gën a dem ca fu gën a kawe kawe kawe lépp lu ñuy séntu ci Parla rek yàlla na ko yàlla suñ borom àggale di sant nag ami seen baay mi jéegam ndax yàqut dara ndax mënoon nañoo bañ a yaatal ci Pablam luñ soxla ci moom buñ ko waxee ami seen mu ne waaw dégg naa ko te Pablam du ko def kon nag ami seen kuy jiig mooy njaaga nañ sant ami seen baay ñu ngi koy sant mu yokk ca kaw ca kënam Pablam njaboot gi mu am yàlla na fekkee njariñ la doom yu góor yi yàlla nañ ko yóbbuwaat màkka ami seen baa yàlla nañ dund ba ko moo pablaam ñu dem Mbàkke man nga xalaat maa koy sant di ko gërëm li mu war ci man lépp mi koy def yàlla na suñu borom yàggal taxawaay bi Macky Sall yàlla na fi yàgg ànd ak wér fu mu bëgg a egg rek yal na ko fa yàlla eggale kontaan nañ lu mu war a def yépp def na ba mu baax ñu ngi sant doon yàlla lafal ñu cat musal ñu ci seytaane yàlla na yokk ca kaw ca kanam. màggal buñ koy wax wala ay cant ak yu ni mel ay euh, ci la. waaw maanaam añ ngi ci est-ce que fii kay dara manqué wu lépp amul benn problème lépp baax ñu ngi nii toog suñuy ceeb bu ngoonee ñu toog suñuy petit pois def ba mu baax la ñuy ñaan yokk ca kaw ca kanam rek la ñaan yàlla lafal ko cat waaye war a def rek def na ko. maa ngi soxna seen. soxna seen jigéenu Pape Lam. jigéenu Pape Lam tey ci waañ wi euh, di ko jàppale ci bis bu màgg bi. dëgg la ñu ngi ci waañ wi di ko jàppale ci bis màgg bi Pape doon ku baax ay mbokkam ak mbaaxam ñun ñi di mbokkam. ñoko ñëk wax moo tax du ci félu papa Lam, képp ku ñëw dis ko sa soxla wala balan ko dis sa soxla mu fajal lako mu fajal lako papa lam li, nii liggéeyam ndayam la far force la ku sonnon ci ku sonnon ci yaayam ku sonnon ci papaam wante wonam bobu mom la ko yalla fay tay muy teranga ji seexkante jël ko nak tek ko ca kaw leppam papa Lam. moom la wóolu moom la bëgg moom la faale te loolu lépp ci papa laam la ndax papa laam kaar-kaar masàllaa wax dëgg yàlla ak mbaaxam ci ñun ñi ay mbokkam ci la ko njëkkee jàmbur yi seg coo tege papa laam lépp luy soxna soxlas nit bu ko ko diisee daf ko koy defal man am naa sama doom juy way ñu naan ko xaadim pap laam bu koy may xaalis daf ko koy baatareel te xaadim lu mu am ci man man mi di ndeyam man la koy indil may sant papa di ko gërëm di ko ñaanal aw fanam gudd ndax fan wu gudd ci la lépp ci la lépp xaj lu man ren gii balaa déwén yal na man lu ko ëpp. Alaaji euh, Cheikh Fall Ramata nga nekk communicateur traditionnel di yëngu ci biir euh, Thiès ak di ko wër tey ñu ngi fii ci Gossas ci kër euh, Pape nekk chargé de mission ci port autonome bu Dakar waaye tamit nekk kenn ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne. di euh, premier ministre waaye tamit euh, di kenn ci nit ñi nga xam ne ñoom ñu sekk ki nga xam ne moom mooy directeur général bu port de Cheikh Kanté mu nekk wóllëre bu euh, président Macky Sall tey ñu bëgg rek nga wax ñu ay kàddu ginnaaw tey bi nga xamee ne dalal nañ la ci biir këram fii ci Gossas. ñoo ngi sant yàlla lu julli ci yonent bi bu baax laaj nga ma lu ma sawar ki nga ma laaj à travers le monde entier munoo topp ñëpp di leen woy waaye koo ne Paw laa la jaawaleel lu mu yor jox la ci ki ngay laaj amul sang ci askan wi mu bokk ki ngay laaj jërëtu la laajte tuuram siiw na ki ngay laaj tàllal na ndey joorom mën na lu baax soo gisee tey jii nag ma won Cees gannaaw war ndakaaru gannaaw ànd ak Mbaye Gueye ak Cheikh Gueye ñu départ ñëw Gossas fekk si ko du sunu jukko jukkoom la paap yaatal na ay mbokkam paap dimbali na ay xaritam paap simon la benn yoon lay tooy paap perkaal la luy ñuul bokkut ci moom ca nag kenn ku ci nekk boo sañoon mel ni paap mii te yàlla amul gom faas lu mu xas bind saye tey jii nag yàlla daf ko def boole ko ak kan le président d'espoir son excellence monsieur Macky Sall mu àndi ak moom àndinu rafet ca du ŋarale parce que ŋarale da ngay xool fii di xool fee paap ba mu ne Macky Sall la ñeneen nekk ci réew mi di ko lëmbe Pape mosu leen a xool Macky mi mu suivre rek la xool bi yàlla ñëw Pape kenn la ci chef du guvernement parce que nit seen ànd bu demee ñeent fukki at booba ànd bi dootul àndu for keneen ki ci des nag di bàyyi faalu président Macky Sall dajare réew mi képp fenn fu nekk mu suuxat fa fenn fu nekk mu jëmbat fa loxoom ngir lépp bu ko sotti président Macky Sall muy taalibe Cheikh Saliou ba di kan Cheikh Kanté mi nga xam ni tubaarkàlla macha allah lu ko waaye am jël ba mu des noonu Pape won na ko jom ak ngor ànd naa moom rafet Pape yaatal nañu ci biir Cheikh Kanté ba Cheikh am nu ba tuutu tàqalikoog te loolu lépp Pape lañ koy sante kon ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Pape Lam bu baax di ko wan ni bu baax a ngi nawle bu kenn gënut a ngi nit ku am jom am ngor am dignité talal nday joram man lu bax ca it tubaarkàlla macha allah nawleem bu mu am yirna la ci ngor ak jom ba tax tubaarkàlla macha allah moom ngay bëggee loo mën am lu dul papa ba la gënal jeri jeri aji Mbaye geey nga nek kenn ci euh, ay kilifa yi nga xamni ne nga ngi ciess ci walu aada ak ciosan mhm. way tamit euh, ñep ràññee la sa taxaway ak kilifa yu bari ci biir ciess mhm. rawti sa and ak ki nga xamni mo moy paplam di kenn ci. Euh, président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñoom liggéey tey yaa ci cant yi mu organisé fii ci Gossas lan ngay yan kàddu ngay yëkkati. waaw dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla loolu di julli ci yonent bi ko di sant nag moom mii di Pape Lam ndax Pape dafa doon suñu xarit man bu ma ànd ak Cheikh Fall mii ak Cheikh Gueye moom mi moo nu ko jaral tey jii. bu nu ko bu doon kilo koloor yut bu nu am oto doon dox fekk ko fa ndax moom mii da dafa day sunu lépp ndax ki xam ne danaan la loo am téyel lu mu am ñu bokk bon kooku fu mu la woo nga wujj ko wate pap ku am yërmande la ku am yërmande la pap du jàppal kenn dara du jàpp mer du xuloo kenn du jote kenn pap ñaar dong ko ñor mooy def lu baax ak wax lu baax ñu koy sant nag ndax moom ba mu jàppee ba léegi bawul moom mi ci ni jëkk jàpp président ci la bokk ñu jëkk ànd ak président ci la bokk ndax bi président ni ñëw cees moom mii moo jiitu man mii maa ca topp ba xeer wanu sànni ba mu moytoo moom mii man mi la dal sama jëb yi muy pablam mi gëmul nag kenn ku dul lu docteur Cheikh soo gisee tey ma njaxasu nii ndax se ndax mooy bàyyi fàllu bàyyi fàllu président boo koy seet si waaye président da def ni bay fàllu président loolu moo tax tey ma def tey ma def tey ji bàyyi fàll déguisement bàyyi fàll ndax bu ma xoolee waaw wane sama laxasaay ndax bu ma xoolee rek rek xelam dem ci Cheikh Kanté waaye nag ñu foo it góor gu baax goo gis jigéen ju baax nga ci wetam muy ami seen mii kenn gënu ko na Ami sen ba ande àndee ba ba mu ba mu Pablam mi ba léegi ci jàmm lay dox ci jàmm lay wax ci jàmm la xam bon yal na ko yàlla jàppale ak njabot gi mam ak Pablam yal na ci yàlla tek loxoom ba ñu sant nak mbokk Pablam yëpp di sant wa Gossas yene di len sant ndax kontaan na trop. voilà euh, Serigne Bassirou Mbacké nga nek kenn ci euh, wa keur Serigne Touba Khadim mustapha tey Thiès Info ñëw fii euh, ci Gossas fekk si la ñu ba rek amal euh, benn waxtaan ci li nga xamante ne toujours moom mooy euh, Sénégal ci li nga xamante ne tey gis nañ ko réseaux sociaux yi di ko amal ci biir réew mi mu nekk coow yéen ngeen di ay kilifa diine ngeen ŋànk tamit wàll bu bari ci li nga xamante mooy ndaw ñi parce que dañuy fàttali ni bëri na ay kuréel yu yëngu fii ci Gossas ci li nga xamante ne mooy jëmale Gossas ci kanam dina ci jiital ak yeneen yi nga xamante ne. dañu la cee duggal ba nga xamante ne li nga xam ne wàllu développement la fii ci biir Gossas da nga cee duggal solo ko ñu bëggoon rek sëñ bi euh, nga wax ni tey euh, li nga xamante ne nekk na ay jafe-jafe ba ñëpp di ko pencoo ci rajo yi ci télé yi ak yi ni mel tey lan nga ciy àddu. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi ngi leen di nuyu di leen sant di leen dalal itam ah nga laaj itam muy lu am solo ndax daa mel ne jamono da cee toll. muy réseaux sociaux yi <coughs> muy tey li ñuy tudde NTIC ci gën a yaatal ah, muy loo xam ne day mel ne liñ daan wax naan eh, daañu dem ba jamono jëpp ñu mën koo tënk wala boog àddina bépp ñu mën koo tënk ci benn dëkk muy benn dëkk mbaa boog ñu tënk ko lépp mu nekk ci genn kër mbaa ñu tënk ko lépp mu nekk ci benn néeg loolu daa mel ne ci lañu agsi ba tax na tey eh, loo wax fii ca saase àddina bépp mën nañ ci jot ah, kon nak muy lo xamne yakana yaakaar naa ba egsee warees naa dem ba yag ñu def taxaw seetlu def ay jangat mu melni kon ci biir jangal yoy lañu duggal li ñi wax ndax réseaux sociaux yi fi nekk ni demee na no xamne yéme na mom lay wax légui man dafa melni lu bon amatut ndax dara bonatul légui lu yéme lañuy wax mbaa lu yées loo gis ñu joxoñ ko baaraam dañ dañ ko jàppe lu mbaa dañ ko jàppe lu yées waaye lu bon moom mel na ne léegi banaliser nañ ko ba ba amatul solo amatuñ ko solo loolu nag yóbbu ñu ci tey ah, kenn ku ne mel na ne eh, sa am-am sax ngir nga ngir nga gën koo yaatal danga koy jëme ci yooya ndax loo loo indi lu yéeme te mooy lu ñaaw a ñaaw ba jéggi dayoo day mel ne mooy gën a yitteel nit ñi sax ci ci leneen lu mën a doon kon jot na yaakaar naa ñu wax ci loolu nag day mbir bu doy waar. mbir mu doy waar moo xam ne li ñu ko yóbbee mooy responsable bi ci njëkk moom état la état la ndax euh, société dañ koy dañ koy sàmm dañ koy aar mel na ne nag réew mi euh, kaaraange googu dafa des ndax ñuñ mënuñoo mënuñoo mënuñoo arrêté réseaux sociaux yi mënatul a nekk loolu moom fi mu ne ci àddina loolu mënatul a ne ah bu fekkee ne nag réseaux sociaux dañoo dañoo dañoo dem ba tàbbi ci biir mu xaw mel ne la Senghor daan wax muy le rendez-vous du donner et du recevoir daa mel ne fi mu nekk fa lañ toll ah ku amul loo loo donné gannaaw kenn joxewut ñu amuñu lu ñuy joxe dañuy recevoir rek day daal di doy waar kon lu jógee feneen day daal di tàbbi ci suñu biir loolu nag daa waroon a fekk ñu bàyyi woon ko xel ba kaaraange gi may wax ñu mënoon a aar société bi ba buy egsi muy am yu ñuy mën di segg yenn dugg yeneen di bañ a dugg waaye léegi dañoo bàyyi lépp di dugg kon loolu responsable bi njëkk moom laay wax beneen responsable bi mooy way juri ci kër yi ndax itam sa njaboot su fekkee dangaa jël sa doom jël jël jël portable téléphone portable jox ko léegi téléphone portable yi xam nañu daanaka ay ordinateur la xale bi di connecté ci biir këram yar boo mën a def ci moom loo yendoo def ci moom bu guddee ñu génne ko ndax mu ngay jokkoo ak ñeneen ak keneen koo xam ne xamuloo ko keneen koo xam ne mu ngi koy jëme ci mu ngi koy jëme ci leneen kon respons bu état bi dañu daal dina kon responsable bi ci topp mooy mooy mooy mooy mooy mooy borom kër yi ginnaaw nag li ñuy wax bu ndox tuuroo an bàq des mooy lii am moom am na ba noppi te itam gisaguma lenn loo xam ne mën naa mën naa mën naa fegooti loola gisatuma ko kon an an bàq des an bàq mooy lenn mooy ñu ànd rek def suñu jàngat amaana yàlla mën nañoo dimbale ci li sëñ Murid Murid Fall doon wax léegi mooy ñu ñëpp ñu àndee nag fas yéene loola jóg fi bu ñu tàllee suñu loxo yàlla bu ñu ko ñaanee suñu borom mën ñoo may waaye li am moom am na ba noppi kon ndox tuuru na an bàq des waaw loolu daal moom laay njëkk a indi ci li ngay laaj ba noppi alors euh, sëñ bi ñeneen ñi tamit euh, ci wenn wàllu yi tamit ñu ngi naan euh, kilifa diine yi tamit am nañ ci cër hmm. parce que bu ñu xoolee Sénégal dañuy dundu taalibe euh, ba nga xamante ne bu la su sëriñ wooyee jox la ndigal rek euh, danga koy jëfee mu nekk nag loo xamante ne nee ñu gisaguñ ñu bëri di ci àddu ni nga xamante ne moom lañ doon xaaree askan yi bu ñu gisee ni sëriñ Bassirou Mbacke fii ci Gossas dana dajale ndaw ñi dajale mag ñi jëmal leen ci li nga xam ne mooy développement maanaam ci yu bëri ci ay investissement humain yu ci ciy fekk si fii euh, nga koy tàggatal ñi nga xamante ne moom mooy taalibe yi ba bu ëllëgee ñoom it ñu mën a jëriñ seen bopp waaw xam nga xam nga loolu moom wax ko wax dëgg yàlla daanaka bëgg a accuser kilifa yi rek la saa su ne nga dégg ci rajo ñu ne kilifa yi duñu wax kilifa yi noppiwuñu <laughs> lan la ñu waxut lu ne wax nañ ko ah oustaz yaa ngi fii ci ci ci ci rajo yeeg télé yi ne ñu ngi wax kilifa yi ñu ngi wax màggal yeeg yëpp occasion la ñu wax waaye saa su ne bu ñu waxee ñu ne waxuñu kilifa yi waxuñu kilifa yaa ngi wax problème bi kay mooy ña ñuy dugal lañu ñu war a dugal seen nopp yi dañ caa dugal leneen ba loola fees ba loolu dugal it du dugg loolu mooy li am mooy li ma doon wax sànq mu ne dañoo feg fegwut dañoo fegwul dara dañoo bàyyi société bi di dox ci ni muy doxee ñu dem a dem ba tey dugg nañ ci li may wax mondialisation moom laa doon tënk doon ko leeral ñuy indi lépp li ñuy indi muy dugg si te te feguñ ci dara waaye ñuy wax moom ñu ngi wax waaw loolu moom laa ciy wax li ci des eh, ci ci ci loolu nga wax muy développement boobu muy activité de développement yi ñu def loola ñun dañoo jàpp ne am nañ ci wàll ci li nga wax mooy suñuy saafara ndax man jàpp ma ne solution yi mën naa jóge ci kenn déedéet jàpp ma loolu moo tax ma ne ma woon sànq ci njëlbeen gi ma xëy na bu ñu defee lu mel nii gannaaw bu ndox tuuroo ba ndox bi ñu ne an baax a des ñu ne kon bu ñu defee lu mel nii mooy def ay jàngat kenn ku ne indi sa xalaat xalaat yooyu bu ñu ko jëlee boolante leen bu yàggee mu jur njëriñ xalaat booba eh, man dama cee dama cee am wàll woo xam ne dama ko tànnal sama bopp di ca dox wàll woo mooy lan mooy xidmatul xadim muy njàngaleem Serigne Touba ndax man ci sama wàll japp na ni problème yoy yépp liko safara saafara lenn képp la muy delluwaat ci njàngale mom njàngalem serigne touba muy xidmatul khadim xidmatul khadim lumu don ci ni la ko meuna teunkelé ci gatt limu don moy and ànd jëriñante te yàlla rek tax ndax bu fekké né jamono da dox ñi dem ba ci wutum alal wut alal kenn ku ne daw diko xëccu kenn xolatu lu baax kenn xolatu lu bon kenn xolatu ni ñi amé am bi yalla am solo moy nañu am rek foofu yaakaar naa bu jamono tollee foofu war nañoo delluwaat ginnaaw xool nag delloosiwaat nag ci njàngalam Serigne Touba boobu mooy xidmatul xadim ma tënkale la ko ànd jëriñante te yàlla rek tax ci biir loolu moom lañu indee programme yi nga xam ne ñu ngi ciy dox tey ci Gossas ndax bi ñu ñëwee fekk nañu dëkk bi doon dëkk bu tilim dëkk bi dëkk doon dëkk bu bërim ñax dëkk bi dëkk doon dëkk boo xam ne buy faral di inondé la ndax ay canalisation yoo xam ne Euh, bu ñu leen war a débouché itam kenn débouché wu leen moonte am na ñu ñu fal ngir loola waaye ña ñañu fal ndax am nañu moyens yu ñu ko mën a defee gëmu loolu kon bu ñu toogee ni ñii kat fal nañ leen di leen joxoñ baaraam ni yéen lañu fal yéen a war a def ñun ñu toog croiser suñu loxo seen ci ci seen gannaaw di xaar ñoom ñu dem di wuti luñ ca def amaana sax wuti ni mën naa bañ a sell amaana itam mën nañu wut ba sonn te loolu duñ ko fi mën a jëlee. mané nakon, na kon ngir solution am ci li moy nañu delu ci njàngalam Serigne Touba moom ma tekke nona te moy and jëriñante te yalla tax ma wolen ci and defar li ñepp bok bi ñu ñëwee tàmbali bi comme lima la wax deug saat fekkon na muy dëkk bu tilim dëkk bu tilim moy dëkk bari bëri tay fi jamono toll suma neel fi la ci suñu bennaw gannaaw kër gi ab sën bu maga maga maga fi da nga nan dedet te non la démé won lolay lu yaatu ci deuk bi biñu ñëwé ñu dajalé xalé yi woo leen tàmbali ko ci taalibe yi mooy murid ni ñuy waxal yemuñ ci ñoom nag dañoo woote yaatal ñëpp ànd ak ñoom ah leen fii jamono toll weesu na war nañoo weesu li kon nañu tàmbalee liggéeyal yàlla ci lii ñëpp bokk te mooy lan nañu fexe ba seen i jóg fii ca tàmbali ca ndorte foogoon nañ ne mën na ne waaye bañ ca jógee tàbbi ca yàlla dimbal nañ ci loola ma leen bu buñ ci yem dëkk bëri nam ñax ñax ku ne xam ne ne eh, ay danger yu bare bari ñoo ci nekk tàmbalewoon nañ dëkk bi di fi lu nekk di am te amuñ ci benn pexé japp ñoo sax né solution war na ci mëna am mané lé nañuy bolo at mu jotati bu nay bi wàccee nañu wër quartier par quartier du genn kër lañu défar quartier bi laa la dëkk bi lañu def quartier par quartier ba dëkk bi yépp jeex ñax mi nga fi gis tay ci nawet bi inshallah buñ jowé magal dañu dajé ñëpp dajé def ci seen loxo ñu dindi loolu ba mu set bu dëkk bi inondé itam nonu lañ koy doxalé kon loolu moy dellu ci lima ma wax ànd jëriñañ te te te yalla tax te japp naa loolu buñ ko yaatalee ci réew mi solution mëna am waaye solution moom gëw mu mukk ne mën naa jógee feneen fudul ci suñu njàngale mag yi jàpp ma loolu. alors euh, sëñ bi jërëjëf euh, ñu ngi jëm tamit euh, ci bis bi nga xamante ne. ay mën nañu jàpp ay cant yi nga xam ne Pape Lam ak njabootam soxnaam Ami Sène ñoom ñoo ko organisé fii ci biir Gossas ñu gis ni tamit am nga beneen taxawaay toujours ci wàllu développement am nga tamit relation ak ñoom tey ku wax Pape ci Sénégal da ngay wax. Cheikh Kanté waye tamit ku wax Gossas da ngay wax premier ministre Mouhamed Boun Abdallah euh ku wax ñi da ngay tuddu président de la république eh, Macky Sall. waaw jërëjëf pap mom alhamdullilah bi nga bi nga ko bi nga ko tuddee Pape day kenn ku sori ci ñun ndax pap ñun dañoo bokk sëriñ ndax eh, sama wayjur muy sëriñ Cheikh astoufal Fall mu sëñ Basirou mo doonoon sëriñu pap yàlla dogal bi mu fi bàyyi ko bàyyi fi tawam bi ñuy ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool muy Cheikh Abdou Mbacké mu toog toogaayam ba mu toogoon bu ñu mënoon a bu ñu sañoon a wax sax toogaay bu gën a rafet dañ naan mu toog toogaay bu gën ndax jamono yi dëppawut ñëw jamono jëf jëf jëf sëñ Cheikh Asbal nekk woon ak jamono ji bokkut kon day mel ne macha allah fi mën a yem te sañ ko wax mooy toog na ca toogaay bu jekk ca palaasam booba Pape nag yàlla dogal sëñ Cheikh moomu di léppam mu jox ko léppam itam nag di ko ndamoo fu mu toll ndax lu jotaay reey reey reey reey soo fa fekkee pap buy wax fu muy tàmbalee waxam ci sëñ bi la koy tàmbalee kon day kenn ci ñun di di ko sori ci ñun loola it tax lu muy dugg lu ne incha allah dañ koy fas yéene dañ koy fas yéene ànd ak moom pap nag lépp lu muy def mu ngi koy def ci ndigalul président de la république Macky Sall lu muy def itam mu ngi koy def ci jëwriñam ji muy premier ministre Mohamed Bon Abdallah Dionne ndax Gossas mënoo wax tey Gossas te tuddoo Mohamed Boun Abdallah ndax wax dëgg Gossas am na yu bare bare bare yu fi am te lañu ko may moy lola xam nañ ko ndax tay bu am bu abla mu ngi moy mohammed jonn yalla dogal muy premier ministre bi mu doonee premier ministre ak léegi ko sax ko na bu baax a baax a baax te xam nañ kanam la jëm ndax xam nañ li li li li li yéeneem xam nañ ko te yalla yàlla jox na ko kàttan ndax premier ministre du lu ndaw kon dañuy ñaanal suñu borom eh, gëna dëgeural dëgëral ab amam gëna tax gëna dëgeural taxawayam ndax Li mu yor wax dëgg suñu xel dal na ci li pap di organiser nak ànd kook soxnaam muy soxna Ami seen day cant gu mu amal tuddee ko suñu wayjur muy Serigne Cheikh Astou kon xam nga la ma waxoon dikkaat na waaw mooy pap dañoo bokk dañoo bokk kër bokk lépp ah, amul lenn itam lu mu ci waxam nee na ma awma lenn lu may yéene yëkkati lu raw sama kër sëriñ muy kër sëriñ Cheikh Astou jaarale ko ci taawam bi muy sëriñ Cheikh Abdou Mbacke kon bisub tey bi li moo ko waral ñu waaj nag fas yéene mobiliser ñu ñëpp ànd ko ak moom ca nam ko bëggee bu tàmbalee dañ ko tàmbalee ak moom fu mu ko yemaleet fa lañ ko incha allah moo tax mbokki taalibe yëpp nga fekk fii ñu ànd ñu ñëw sëñ Modou Fall mi mooy mooy conférencier bi di taalibe sëriñ Cheikh Astou Fall bi nag bu baax a baax a baax jógee jógee Kaolack sëñ Bayulaan mi nga gis sama wetuk ndeyjoor Dakar la jógee ñoom ñii fi nekk ñëpp ñëpp waa waa waa dëkk bi lañ incha allah daal fa sañ ko ne ànd ak moom kem ni mu ko bëggee bu soobee yàlla sénégalais yi kilifa yi message di ginnaaw euh, gën nañ mhm. nañ président Macky Sall wax ak bi day euh, gën nañ ci tabaski ñu ngi balu ñëpp ak tey bal ñëpp tey ñaan suñu borom may ñu fekkewaat ko ay dewen yu bare bare bari niñ koy baaxoo waxe mooy dewenati mooy nañ ñaan suñu borom may ñu fekkewaat dewen réew mi nag fii mu toll yaakaar naa soxla mooy waxtaan muy li ñuy wax dialogue ndax jóge nañ ci ay élection ah, yàlla dogal na euh, coalition président de la république yàlla defal na leen ndam waaye bu ndam li amee ba noppi nag day doon ndamul Sénégal yëpp kon mel na ne élection jeex na bu élection jeexee nag li may wax li may ñaan suñu mbokki sénégalais yi mooy nañu dellu liggéey yi amatuñu temps euh, waxtaan amatuñu temps wu leneen nañu dellu ci liggéey bi temps wu campagne bi jeex na temps wu politique bi jeex na kon nañu dellu ci liggéey liggéey boobu nag dañ ko teg ci kaw li ma wax léegi te mooy dialogue mooy waxtaan nañu àndandoo waxtaan ñi daan xëccoo kuréel yi doon xëccoo léegi xëccoo bi jeex na li des mooy ñu waxtaan àndandoo ñu ñëpp dugal suñu loxo ci liy développé réew mi المنام وطيب الزوال لي كما وكفاني سرمد المنام وذكري كان وساخل العرب وتاثير بكره من وارب ودوري إلى ثياب الأمنا وخادني بلا حساب المنام واعتصم بوحود يما ورادني كل قلود كما وجادني بكون سام في الباب ولي الأمة عيش كشفا وكفانا جملة رسايا بي وسا خليل بعين مسايا فإن جل على ساك أحد ودي جابتي دوادا الجليل قد جواب شكري وصناي وذكاني قد نفعنا لا صلوا على الذي تجيب سيدنا 谁？谁的呢？ وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ الدين وشرائعه ووسائل إليه في قفران زلاتهم وقضاء حوائجهم الدنيوية والأخروية والصلاة والسلام على سيدنا محمد محك النبار الأبرار منبع الأنوار والأسرار سيدنا ومولانا محمد البشير وعلى آله وأصحابه وقديمه الأعظم خاتمة المجددين وقوس شقلين القائد في لجة بهر اليقين مولانا ووسيلتنا إلى الله خليفة الرسول الله في الأرض فهو خادم رسول الله مولانا الشيخ أحمد بامبا بوك جوليدي mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ko ne ci aw turam ak santam tey jiital ci nuyoo bi sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar yi tey ak ëllëg cheikh Abdou Mbakke xalifatu cheikh Astoufal Mbakke ibnu cheikh Mouhamadul Basir ibnu xaadimu rasulillahi Mawlana cheikh Ahmad Bamba. kon jëmm ju tedd jooju moo fi teew ànd ak i rakkam bàyyiwul kenn ci taalibi yu mag yi nga xam ne ñoo séq kër gi ngang ko ak i dëkkandoo di ay ulama u di boromi xam-xam bokkoon ci rakkam yooyu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké te yéen waa Gosaas gépp ngeen xam ko ci pastéef ak dogu ak teg tànkam ci ndigalal kilifaam gu tedd gii waaye maam na Mbacke yi tamit teew na di rakkam ñu bokk benn baay kilifa yooyu yépp kenn ku ci nekk bàyyi nga say itte ñëw ngir kan ngir kii nga xam ne mooy pablaam pablaam nag mëni ko tudd walla nga séen ko wala ñu wax ko te tuddoo Cheikh Astou Fall moom day ko gore di ko baax jaay léppam jëndi ko ak taalibe di ko woyof te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne laa yadxulul janna man kaana fi qalbihi misqaala sarratin min al kibr lu toll ne pepp suuf ci ak rëy ku mu nekk ci sab xol daañu ko dindi yomal xiyam bala ngaa tàbbee àjjana ni ñuy dindee bal bu dugg ci barabu yaramu nit te jàllul daañu ko ni dindee ba mu set wecc pablam mi taxawoon cant gii nag tey tudd ko sant Seex Astu Mbàkke mu tedd mi muy jëmm ju tedd ji toog def ko it ngir wormaale ko mboolem koo xamante bi ni yaa ngi ab jullit ndax ak cant war na ku ne sunu borom nee na bu ngeen ma dee sant ma dolli leen cant nag mooy lan jëfe ay ndigal bàyyi ay tere feeg jëfe goo ay ndigal bàyyi goo ay tere mënugoo sant pablaam nag bi ko sunu borom dimbalee ba mu taxaw taxawaayu mën a cant mënu njukkal li may def bala ma cee def dara wala ma di ci wax dara damay jëkk sant sama sang bu tedd bii di Cheikh Abdou mbakke kon pablaam noo ngi ñaan ci kattanu yàlla ak daraje yonent bi barkeb Seydina Muhammad yal na la yàlla taxaw waaye it wolof dafa wax ne ku lakk mburu tuddub dëkk te wax dëgg bu ma tuddee pablaam ne tekk yem ci tudd sëriñ bi tudd ma leneen dañuy daal di wax ne kii kat dafa iñaan te déedéet noonu ki ñaan nekkul ci sunu xol waaye la tax muy sant ba man ko ñoo ñooñee ko jàppale itam ñu ngi koy sant ñu ngi leen di sant ndax nag wolof nee na voyageur jinax bu dajeeg duwaañu muus jarul muy génnee këyit wala bal du ko jàllale kon daal li ma bëgg a wax foofu mooy dukk dukk ak yomb yomb lu ci nekk aw xel la waaye mes dafa gën a gaaw ndax dalay noppal noppal ka ñuy dàq kon ku tudd Pape Lam dana tudd président Macky sàll ak ñi mu àndal ñun nag danoo nangu dogalub yàlla la yàlla dogal rek moom la ñuy nangu ndax am na fu mu toll woon am nu meloon kon bu sunu borom doon leen dimbal mu taxaw taxawaay boobee ci ak bëgg ak taxawaay ba sunu borom dimbalee ko nii la mu ca man lépp mu ne dama sant kenn man sëñ Tuubaa laay sant tàncant gi ma koy sant dama koy jaarale ci Cheikh du Mbacké mu tedd mi loolu du la tuut ndam la waaye nag ki muy sant danañ ci waxtaan tuuti waxtaan woo xamante ni bii na ngeen mbay nu nu àggale ko ndax ci programme bi la du ay heures yu ñuy maye du minutes yu ñuy joxe du kàddu gu ñuy coof ci programme bi laa bokk dañ ne cee programme ma am heure yu ma war a wax kon du ay minutes da ngeen ñuy déglu ba ñu leeral ko ci ñu ni inna min ahamil umur fi takwini xayaatina bokk na ci itte yi ak la ëpp solo ci sunu jamono bi nit di ko xam wa min aasamil ibaadaat bokk na ci jaamu yàlla ya gën a màgg tey fii ci jamono bi dafa jot ñu di ko wax bokk na ci itte ya gën a kawe ak jaamu yàlla ga gën a màgg maarifatuna bi cheikh astufaal Mbàkke ñu xam na kan mooy sëñ cheikh astufaal bokk na ci jaamu yàlla yi gën a kawe bokk na ci itte ya gën a kawe li tax bokk na ci jaamu yàlla ya gën a kawe yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne inda sikri saalihina tunazilu rahma aw tanzilu rahma tudd waa ju baax dafay wàccee yërmande mu dellu wax ne moom sallallahu alayhi wa sallam man araxa waliyan fa ka annama ahyaaha képp ku taarixal wali yu mu dem nga di ko fàttaliku di nettali ay jaar-jaaram mel na ni mu ngi ci biir suuf nga jóg yëkkati ko delloowaat ko ak room mu taxaw ñëpp di ko xool nee na ku taarixal wali yu am nga tuyaaba joojee loolu moo tax. sang bu tedd boobu di sëriñ Cheikh Astou Fall Mbacké moo doon kan moo doon doomi Cheikhul Khadim moo doon sëtub sëriñ Touba Cheikh Astou moo doon sëtub sëriñ Touba waaye ko doon woy juróom Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Khadimu Chahir sëñ Basiru Mbacké mu tedd ma moo doon woy juróom ak kan soxna Astu Fall soxna Astu Fall moomee ku ko jur maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kon kooku la wolof lu ba di wax naan ñaari njool ku ñu tungoom nga kawe ah loolu mooy la ci am surtout sëñ Basiiru di doomi Cheikh ak soxna Astu Fall sëtub Sëriñ Tuuba ak sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina nga xam ne ñaari laaf lay naawee loolu yombut du aw tagg yu yëkkatiku du damu waaye la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan man maa gën ci giiru Qurayshin waaye nag damawuma ko dama ko wax rek ngir ngeen xam ko ba mën a dimbali ko sëñ Cheikh Astou Fall mii doon ñaareelu doomu Cheikh Mouhamadul Basir radiyallahu taala anhu taxawaay bii la taxawoon doon moo doon ki nga xamante ni bii ne. buñ ko daan tudd mën nga ne kooko mooy miftaahu kullu xayrin moo doon caabi wépp yiw boo ko ne jàkk rek yiw day ñëw njàqare joo amoon dal di dem ñi may waxal xam nañu loolu ku ma sa xool Seex boo amee tiitaange ju mën a doon ak njàqare ju mën a doon njàqare ja day dem lu ko def tënku ga mu tënku woon ci sharia tegu ga mu tegu woon ci sunna xam ne képp ku tegu ci sunna génn ci fitna kon jëmma ngoo yoo xamante ni ne mo doon ciabi wépp yu waye mo doon wax mo doon xombal wépp ay kep ku bëgg tawféex bo jakarlo mom yalla dimbil la bu lolu amé ñu di ko bëgg waxtané waxtaane ak ngeerum dana ñeel ci kep ku fi dajé tay diko ko barab bi jarna juk sol di dox ba agsi ci barab bi toog ndax xam ngeen ne biñ daataan jóg tey ci suba wàccee nañu fi kaamili alxuraan kaamili alxuraan ni alxuraan toll nga xamante bi ni téeméeri saar la ak fukki saar ak ñeent euh, yi nga xamante bi ne ñoo wàcce màkkatal mu karama di juróom-ñeent fukki saar yi wàcce madinatul munawara di ñaar fukki saar ak ñeent asaar yi ci nekk di six mille quatre cent dix aaye alxuraan yépp di six mille cinq cent trente six baati alxuraan di neuf mille neuf cent quarante arafi alxuraan yépp tomb yi ak sàdd yi ak masque yi di trois millions cent seize mille six cent soixante douze te ñu wax ne kiy jàng alxuraan araf fu nekk danañ ko ci defal téeméeri yiw faral ko ci téeméeri ñaawteef ñaata kaamil lañ fi wàccee man araada al qurba min mawlaahu fal yaqri al quraan la yansaahu képp ku bëgg a jege yàlla del jàng alquran yonent bi ne lil xaari bi kulli xarfin minhu miatu xasana kiy jàng alquran arfu nekk am na ci téeméer yiw daañu ko ci faral téeméer yi ñaawteef bi loolu jàllee ñu dugg ci xasaayit yi ci guddi gi xasaayit yi nga xam ne mooy gànjarug sëñ tubaa sëñ tubaa moom lu ñu dénkoon bi muy dem lu mu waxoon maa ngi dem waaye maa ngi leen di bàyyee ak ñett ñu ne ko mbàkke ban ak mu ne sama doom yi sama xasaayit yi sama jumaa ji sama jumaa ji képp ku ci feeñ dootu nëbbu ndax yàlla yàllaa ma ko digal sama doom yi képp ku ànd ak ñoom doo sànku duñ la sànk te da nga tegu ci saraatal mustaqim ndax dama leen a teg ci saraatal mustaqim sama xasaayit yi ñooy samay tànk ay tànk nag bu nit ne wëri nga topp ay tànkam fu mu teg sa tànk nga teg fa sab tànk bu yàggee fu mu dugg da nga fa dugg kon na ngeen fonk xaside yi jàng nañ fi alquran jàng nañu fi ay xasaayit bernde nañu fi togg nañu fi ay ñam yu doyo doy te xam ngeen ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mujjug liggéeyam bokk na ci li ko sëñ Tuubaa bokkoon li mu ko doon digal bokk na ci la mu ko doon digal del togg yi joxe te ku ne xam na ne benn tibu ñam ci koll ku xiif moo gën tabax jàkka ndax boo lekkut na la wóor ne doo tala jaamu yàlla ndax sëñ Tuubaa nee na ñett moo mënta ñàkk ci doomu aadama ñu ne ko mbàkke ban ban mu jàmm nit lim gën soxla ci àdduna mooy jàmm bu amee jàmm ba noppi faw mu am lu mu suturaale yaramam wii lu mu teg ci kaw yaram wi ba awraam du feeñ su amee lu mu suturaale yaramam ba noppi nag faw mu lekk ndax bu lekkul du taxaw sëriñ bi nee na ñett yooyu bu amee jàmm loo suturaale saw yaram loo lekk ba mën a jóg taxaw jaamu yàlla sëñ Tuubaa nee na leneen loo ca tegati àdduna la waaye yàlla taxul yooyu yëpp pablam taxawal na ko fi tey bernde na jàng nañ fi alxuraan jàng nañu fi xasaay bi mu dugg see léegi maa ngi dégg ki doon jàng di yëkkati xasaayit goo xamante bi ne boo ko dee jàng di ko yëkkati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day yëkkati loxoom teg ko ci bopp képp ku teew ca tànt ba loolu jar na jóg xasida gi ma jàng léegi boo ko dee jàng doo geesu doo tufli ndax boo tuflee mu dal ci ko yonent yàlla muhammad xasaay lii sëriñ bi nee na léeg-léeg aajo yi doomu aadama faju ñu ne diw day aajoom faju na ñu ne lu faj aajoom fekk day toog ba yàgg rek am xelam dem ci wenn bëyitu xasaayit mu jàng ko bëyit wa dem ba aras dellu siwaat faj aajo ja te xamul ni xasaayid yi la sëriñ bi nee na ma ne waaw kii lan moo faj aajoom fekk xasaayid yi la moo tax xasaayid yi dafa am aw jàngin dafa am nu ñu koy jàngee boo koy jàng doo kaf boo koy jàng doo ree boo koy jàng da ngay laab ndax bokk na ci li Iblis doon waxante ak sëñ Touba ca bisam yu mujj ya ba mu dikkee njaarim fekk ko ci buntu kër ga te sëñ Touba di waxtaan ak moom sunu borom na ko Iblis demal wax ak sëñ Touba mu dikk muy wax ak moom ba dikkee lim jëkk a wax sëñ sëñ Tuubaa ko ni loo fi wut mu ne ko sa borom mu yónni ci yow nee na nañu waxtaan ndax yow diir bu gàtt moo la fi dese nga dem diir bu gàtt moo la fi dese nga dem sëñ bi ne waaw mu ne ko def ak dindi nekkatul ci say loxo mu ngi ci loxol xaside yi waaye loxol xasaay yooyu mu nekk na ci lay naxe ñu baree bari ëllëg dal ne wëriñoo na ginnaaw sëriñ bi nee na booba ak léegi mi ngi liggéey maa ngi liggéey xam nga ne am na jànginu xasaayid boo xamante bi ni képp koo jàng yaa ngi nax sa bopp yaa ngay nax ña fa teew loolu moo tax am kenn ci seex yi seex boo xam ne dafa wàcc lu liggéey faatu biñ dikkee wax ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ni leen lu mu bàyyi ñu ne ko ah, moom day mbàkke bàyyiwul dara bàyyi na fa wenn fas ak laloog weñ sëñ bi ne seet leen ndax ay xasaayid tëgg ca biir ñu xool biir kër gi gisuñu fay xasaayid Sëñ Tuubaa ne jaay leen lalo weñ ba te jaay fas wa seet ñu mën a bind te mokkal xasaayid ñu bindal ko kenn ku nekk fukki ak ñaar ñu moomale ko ko mu tàbbal ko àjjana te booba amaguñu lu ñu mboolee ay xasaayit xasaayit mooy li nga xamante bii de waxtu woo ko dee jàng aras day yëngu kursu yi di saabal malaaka mu yàlla bind di saabal bu ngeen gisee ma taxaw ci xasaayit xasaayit dafay gànjar goo xamante bi ne saytaane mënu ci dara dara dara dara dara te seytaane dafa bari doole ndax yàllaa ko dooleel xasaayit mooy li nga xamante bi de boo ko dee jàng secret ba nekk ca laa ilaha illallah yàlla defal na la bu nu toll leer ga nekk ca laa ilaha illallah yàlla defal na la lu nu toll ilaa tawalifi yaqululaahu asrara laa ilaha illallahu ilaa tawalifi yaqululaahu anwaara laa ilaha illallah sëriñ bi nee na moo tax bu ma dee tagg yonant bi wala ñuy tagg yonant yàlla muhammad ñaari mbir damay dal man sëñ tubaa ñu ne ko ban ak ban mu ne nopp ndeyjoor bi sama xol bi da ciy sedd guyi ndax yonant yàlla muhammad da ciy xàqataay waaye nopp càmmoñ bi day mel ne luy bëgg a bënn ndax iblis da ciy yuuxu day mel ne kuñ koy sotti ay xal ñu ko bindal mu ne tabassamal muxtaaru min jinaasi yi mun suba da bihi bukkal tabax sama dana muuñ almuxtaar yi yont yàlla muhammad min jinaas yi ci sama rafet yi ni taalif mun suba daa bihi bukkal xanaas yi may feeñale jooyu iblis looloo tax boo dee jàng xasaayit da nga egg ci yàlla te ko yëg نيوكو بندل من توصل أحلامي إلى الله عابدا بلا قلوة ولا أبقى كما أغنى شيخ محمد البصير ابن قديم الشهير مامي شيخ عبد المكي ميتوك دي باي شيخ أصفال نيوكو جانجين ونان لا شيخ محمد البصير بمجرد القراءة فقط نجا جانج تسلل تأمتي بس بس رك loolu moo tax benn naaru gànnaar laajoon na ko ni ko waa yow mbàkke sa sañ-sañ bi réy na de ak la nga am ca yàlla xanaa yow kon bu la neexoon kuy sab taalibe nga tàbbal ko àjjana sëñ Tuubaa ne ko yaa ko ngott ta tuuti xanaa xamuloo ni man ma neexoon bu yowmal xiyaamatal akbare ma taxaw buntu sawara ku ñuy bëgg a tàbbal sawara ci xeetu yonante bi ma ne yàlla jaay ma ko yàlla jaay ma ko ma tàbbal ko àjjana te duma laaj dara li ma liggéeyoon ci géej gi duma laaj li ma liggéeyoon ci yoonu gànnaar te loolu lépp njëriñal xasaayid yi ci la sëriñ Seex Astu mu tedd moom yi doon koo xamante bi ni ku fonkoon xasaayit la ku teel a mokkal alquran la ku géeju woon la ci mboolem fànni xam-xam danañ leen wax kan mooy sëñ Cheikh Astou Fall ci ay jukkoom ak melokaanam ak taxawaayam waaye nag ku nëbbu woon la ndax dafa am ci nit ñi ñoo xamante bi ni bëri ñu ànd ak sëñ Touba sët yaa ngi ci biir am na ci doom yi am na ci taalibe yi dañu ne sëñ Touba nun day lépp loonu nar a jox nag nu ko dencal ba yowmal xiyaamatil akbar bëgguñu ci dara dencal nu lépp ba yowmal xiyaamatil akbar sëñ Cheikh Asou Fall mu tedd moomee ca ñooñee la bokk jàng na alxuraan ba mokkal alxuraan ci ndigalul way juróom bu tedd wa Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Xadimu Shahir kero ba mu mokkalee alxuraan am ngeen chance yéen waa Gosaas ci dëkk bii la taree alxuraan boo dugge ci kër googu ñuy romb kër googu yi nga xamante bi ne mooy kër Cheikh Abdou Mbacké gu tedd gi kër googu yi nga xamante bi ne mooy kërug barkeel kër googu yi nga xam ne mooy kërug tawfeex kër googu nga xam ne mooy kërug ndimbal kër googu nga xam ne kërug faj aajo la fa la Cheikh Assoufal sukkee Cheikh Mouhamadul Basir toog sëñ Modou Xabbaan mu mag ma toog sëriñ bi ko doon jàngal alxuraan toog kenn ci taalibe yu mag yi bàyyi Cheikh Sylla toog mu ne ko Cheikh bismillah mu tàmbali alif lam mim zalika alkitab لا ريب في يهودن للمتقين الذين يؤمنون بالقيب ويقبلون الصلاة مع رسام ينفقون دكتاري دكتاري دكتاري بمن الجنة والناس سن بسيرون التقرر دلنا جاك سرين بوبي نقول لبلو مدلين تون أجيو دنا لكو جو أدنى دنا لكو جو الآخر غرم نانا كون سن سيا سفال مومو بندون واحد دعنا موي مجاهد الأكبر موي يأكل بمقبر موي قدوة الصالح موي رويتي فو باخو fi tawfiq bayna la ilm wal iraad ci dëppale gu mu dëppale woon ci diggante xam-xam ak ak cofeel fa huwa baa dunya bil axira Serigne Cheikh Astou Fall mooy ki nga xam ne dafa jëloon addunaam jëpp jaay ko jënd ko alaxira bàyyi Cheikh Abdou Mbacké mu toog mii tey Gosaas kenn du leen wax kan mooy Serigne Cheikh Astou Fall Ndakaaru kenn du leen wax kan mooy Serigne Cheikh Astou Fall Kaolack kenn du leen wax kan mooy Serigne Cheikh Astou Fall dafa jaayoon addunaam bépp jënd ko alaxira yaakaar ji kenn képp la pay gi kenn képp la mooy sëñ Touba sëñ Touba mi nga xam ne moo jubóog boromam liggéeyal yàlla ba yàlla barkeel ab yëngoom barkeel ab dalam baaraka lii fil xarakaati wa sukkoon bi li si xat xaari lii kun fa yokkoon mag ñi laaj nañu ko ni ko nan nga demeek sa borom mu ne ni ma demeek Ibra Fall ñu ne ko noo demeek Ibra Fall mu ne Ibra Fall man dong lay déglu su ma ko ne defal mu def su ma ko ne baal mu ba suñ borom it su ma ko ne mu def su ma ko ne baal mu ba nee na yow nag ñu teel a yee nga teel a xam ne yëf yi du mbooloo bu fekkoon na mbooloo mu bari képp mooy taxaw bu fekkoon mbooloo mu bari képp mooy tax nit la muy wut mu am ko ab sàcc ajoom faju bu yàgg ndax fu ñëw wóob góor jigéen mag ak ndaw ñëpp topp koy daw waaye nee na yow xooloo loolu da ngaa xam ne daal bàyyi Lamine Lam na mu meloon ci sëñ Cheikh Assou mel ko ci Cheikh Mouhamadul Basir dëggoom googee loolee képp nga xool xam ne rus nga ëllëg ngeen dem jàkkaarloo. ñi ni pap la mi di doomi bàyyi Lamine Lam kat la bàyyi Lamine Lam fasante woon ak serigne Basiiru bàyyi na ko nee na loolu de nun rus ko moo tax nag sëriñ bi nee na wallaahi sant na la gërëm na la man de lii nga am tey su ma ko amoon su ma tëddee danaa nelaw te danaa sant yàlla du ma ne ku sab serigne gërëm la ngay wut nga am ko ndax dañu ne nit bu la gërëmee da ngay xool ko ko gërëm ku ko gërëm su fekkente bi day gërëmam yegg na su boobaa yow mu ñu gërëm sa ngërëm dana yegg waaye xam ngeen ni Cheikh bu mbàkke mii du waxee bakkan xam ngeen ni Cheikh Abdou mbàkke mii du waxee coobareem kon Pape Lam yal na yàlla guddal saw fan. yal na yàlla yokk la yal na la yàlla barkeel noonu yi nag rek mooy li war a am ndax sëñ Touba ñemewul bor dafa amuk pay sëriñ bi ñemewul bor dafa amuk pay euh, Pape doo ko fàtte yow. la nga daan def gosaas ba fii ñuy waxee yow moom ngay def pablam bu ñuy liggéey gosaas bu ñuy liggéey Touba màggal gii ngay wax pablam day takk ndiggam ma nga ca nag ya ma nga ca ceeb ba ma nga ca diwlin ja bi ko yàlla dénkagul lii mu am it ku mu gis dana la kafal dana la reere waaye nag mag ñi nañu leen gërëm nañ leen doole sant bàyyi Lamin Lam yal na yàlla gudd law fanam te bokk ci buntu kër sëriñ bi fii ci gosaas mu toog ma toog ñuy waxtaan ma ne ko man day paap guddi yi ñu toll daal mun naa mën ko soxla naa oto lool ndax oto yi ma yoroon oto yu service la te lee ma retraité sama oto bopp laa bëgg te xam naa ne bu ma retraité danañ nangu oto yi particulier bi ma yor bi su ma retraité daañu ko jël te bëgg naa oto man daal fi ñuy waxtaan rek benn Mercedes ni dërri ci kër gi gaare ci buntu kër sëñ bi billaahi barke Cheikh Abdou Mbacké Pape Lam ne gees ne ma moo ne Mercedes bi de yaa ko moom ne ko lan mu ne ma Mercedes bi yaa ko moom ma ne ko ah nañ continuer waxtaan bi mu ne ma defal ndànk barke Cheikh Abdou Mbacke yaa moom Mercedes bi ah ma it wax dëgg mënuma koo gëm ndax yu fi daa tembare ñaareel bi mooy ki ko war kilifa la ñetteel bi mooy xawma ko mu ne ma yaa moom Mercedes bi muy Mercedes bu rafet bu wet ma daal di ñibbi na toog tuuti rek kilifa gi ni ma kar téléphone salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ mu murit ma ne Mbàkke mu ne ma dafa mel ne da ngaa bëggoon oto de ma ne ko waaw man de damaa bëggoon oto mu ne ma ñëw seet si oto bi ba xam ma ñëw seet si oto bi ak la ma yore mu ne ma loo yor ma ne ko nangam laa yor mu ne ma ah yow koy bëggoo oto yow nangam ñi nga yor am na ku jiitoo ñeent fukki junni am ku la jiitoo juróom fukki junni ma ne ko kon nag sëñ bi xam nga nooy def ngay dem jaayi ko ñooñu man dama retraité <laughs> te lu ma fay dem te banque ba di gàddu yu bor ak nangam te it bugguma koo jël bi di ma topp sama kër duñ añ duñ reer kon nañ ko ba rek benn yoon ndekk mu ne wëriñ mu ne ma kaay ma dikk mu ne ma waaye yow sax de ab oto ko la ko jox dañ ci liggéeyal sëñ ndax yow tànk boo yëkkati sëñ Tuubaa la daal di may sànni caabi ji ni ma indi li nga yor ba ni may ñëwee ci kër gi kër gi di dawal oto bi sama xel mi daa mel ne pablam luñ ko jël teg ko ci sama kanam wax naa ko ko léegi waxaat naa ko ko léegi nee naa ko tànk yaa ngi metti ndigg laa ngi metti mënatumaa dox nit ñaa ngi nii maa ngi nii yaa ngi nii seex bu makkee ngi nii oto laa bëgg bëgguma nak auto bi pan essence ak buñu japp kat kat la bëgg bu baax bëgguma auto bi fiime ak di raté ak di ñak bëtëri ñu di mu pousse bëtëri auto bu baax la bëgg Cheikh Abdou bakki ngi nii yaa nit yaa kon Pape Lam lii ngay wut mom la gaay yi waaxee doon wut moy lan di liggéey ba sepp sëriñ ni la jërëjëf Pape Lam bi nee jërëjëf jërëjëf nag ku koy xeeb ah dañ ñewul guddina na maar naaj na sang ba mu set waqi bu mu xóot dugal ci bir bammel malaka mi laaj dik dekk la ni la uktub ma min min sayyi'atin wa ma min min asanatin lo ma sa def ci lu bax bindal lo ma sa def ci lu bon bindal nga bind lu bax le ba nopp lu la bindal lu bon li nga ne tek mu ñu la bal jàmbur ñu la lu tax ñu ni ki yërmande yàlla da nek ci mom bal nañ ko bis ni ki tay malaka yi ni la jërëjëf kuy xeeb jërëjëf dañ la ni niwul jërëjëf ci bir bammel pablam serigne sëriñ bi nee na jërëjëf jërëjëf gii la sëriñ bi wax képp xamante bi yaa ngi dégg rajo bi wala ngay gis télévision wala nga teew fi wala mu dégg la wala nga xam saw tur jërëjëf jooju yàlla làqu jërëjëf sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mboolem la maam yee defoon tey pablam dekkal nga ko tey ndax soo wëlbati ko jël satub sëñ Basiiru muy sa wa muy sa wasila nga jël ko jël bis tuddee ko ko nun ñeeñoo yëpp na dajaleeg waa dëkk bi kon nun tey daanaka bu ñu yëkkatee suñu loxoon ni tey liñ doon wut ci àdduna am nan ko ku yëkkati sa loxo rek li nga doon wut am nga ko giñ naa ko ci sëñ sëñ Tuubaa ni lu ngi doon am tey lu doon wut tey nun guddik tey bu ndeewoon tey baax na sëriñ bi papa laam ne yaakaaram day ay bokkam xam nañ ni yaakaaram tasul te papa su ma nee bu demee bay joggi di dëgër yow a papa bu taxawee wëlbatiku di wooteeg cant yow a papa su amee lu muy jox doomu aadama di ko séddale yow a kon mbàkke bul nu fàtte Mbàkke nu fàtte fii bu nu fàtte fa nu jëm te ku ne xam na ni doonu fàtte ndax soo toogee bis bii ñu jox la ko nga wëlbati ku jiital fay rak na nga mënoon naa fekk nga yónni sëñ Bass rek doy nan koo ci yónni woon rek doy nan nga wëlbatiku yow ci sa bopp jógal sa bopp ngir yëkkatiku ngir siggal nu ngir siggal sa bopp si yi tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk di taalibe sëñ Tuubaa tey Pape Lam su la neexee yëkkati sa loxo ndax sëriñ boo yoomu wuy si la te yónneewul am tonkalum taalibe moo xam ne sol nay garaam bu bëkki daraam dikki naa sëñ bi nee na kooku ku la nawloo la sëñ Abdou yaanu nawloo waaye nun suñ bés rek doy na wacceel nga noog faaris boo xam ni wacceel taalibe bi sëñ Touba boo xam ne dafa wàcce boppam nekk ak nun dib taalibe dëkk bii bu yeboon nu ni nun fi mu ne bu nu demee ba nga xam ni sa nawet bi day bëgg a wàcc fi ne daanaka nun fi ne kenn dootu doo lekk dootu naan ndax mbale mi ndax léegi nu tàmbalee tii dóor ndóor mu tooy mi tii dóor ndóor mu te lépp seen Basa papa Lam nee na nag su gërëmee dëkkandoom yi ana soxna ana kooku soxna papa Lam anam jógal taxaw damu yëkkati sa loxo jógal taxaw yëkkati sa loxo yaa ko liggéey damu woo tiitaru woo yaa nangu jógal sa baay taalibib sëñ Tuubaa la woon daa nangu woon ba nga am lii jógal taxaw ñu seen la wanewun la sëñ bi taalibee ngi nii mbooloo du taxaw mu jëlu ni jëli mbubb ne sama jëkkër am na du dugg ci oto du luyeeb sareet ab tànkam la yor boo ko gisee nga dee ni kii jëkkëram amul dara waaye baayam faalif la woon boo xam di taalibib sëñ Touba ku ne xamoon na baayam ku ko mënoon ci yoonu sëñ Touba amut ku ko mënoon si liggéey amut te bu la rombee nga dee ni moom ci boppam kii yorul dara taalibi dëgg noonu la men Papa Lam nee na mu ngi sant dëkkandoo yëpp ndax woote ñu wuy si la bu ne woon sama sëriñ day ñëw tey kenn ñëw fi tey kon bu sëñ bi yëg see fekk fi ñetti nit dinañ sëgg waaye yow doo sëgg. nee na mu ngi sant waa dëkk bi yëpp nag bàyyiwul kenn mag ak ndaw ak gone ak jigéen yëpp bàyyiwul kenn mu ngi sant it gone yi Baay Faal yi nga xam ne ñoo fi nekkal Cheikh Ibra ak taalibe yi nga xam ne danoo laxasaayu te yàlla yonent bi sëñ Tuubaa dong tax leen a jóg ndax baas bii ku fi ku fi nar a toog ba bët set toog jàkkaarloog noonu ku ne xam na ne boo ne sëñ Tuubaa tax ku ne xam na ni dëggul ñu nga xam ndax boo nee Gusaas. fu ma taxaw ci baas sëñ bi dinaa ko wax ñeel mun njaayam sëñ bas dox baa ko wax ngune yi ndaw yi day ñoom loo leen teg ci yoonu sëñ Touba nangu nan ko waaye mag ñi de loo leen woo ci politique ñu wuy si la waaye góor ñi jigéen ñi ñoom bu baas bi doon fanaan it du tas papa laam nee na nag mu dem ci bokki boppam na ngeen nu ñaanal Macky Sall yàlla na fi yàgg président la boo xam ni lépp lu mu wax jëfee na ko te du bariwutu wax te kenn déggut coowam ndax Macky Sall doo nga fi ma doon président boo xam ni Macky Sall doo nga fi doonoon président boo xam ni réew mi yëpp wax dégg na liñ ko waxal waaye moom ji boppam musta tontu musoo dégg mu wax te luñ ko wax neex na ko nee na nag nu ñaanal ko Pablam nee na mu déggoy foofa nee na mu teg ci nag njaatigéem ana soxna si yow kat papa laan nee na sa nee na sëriñ bi di Cheikh Kanté mi nga xam ni moo moo fi jëkk a ñëw fii dajale waa dëkk bi digleen leen wëlbati kon papa laan nee na Cheikh Kanté un million la ni la waajee ko bis bi nee na ki nga xam ni mooy ma ja ki nga xam ni mooy Adama Diallo ñëw na feeg teraangaam nee na mbooleem koo xam ni. ci autorité yi la nee na dikk na feeg teraangaan nee na mu gërëm ko di ko sant di sant seex Kanté nee na di sant ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bii lu noonu nga ma wax. nee na ndax lépp lu mu def yàlla ak ñoom moo tax nit ki nag képp ku dul gërëm doo sant jëroo defal dara nit da ngay gërëm di sant papa laam nee na ndax soo mënee dara kat góor gi wax na ko léegi soo mënee dara kat. dangaa ngaa ci fa dangaa ngaa jastandiku ci bërëb ba jàll waaye suñ la bàyyi woon kon doo génn fii nga nekkoon di buuse ci biir ci biir euh, euh, jàngukaayu école bi waaye góor balaa jàll il faut góor gu bañul doo dem papa laam bañ ba dem nga dem jógi ci ñoo xam ne ñu yëkkati la ndokk nag bi nga yëkkati ko bi la ko joxee nga yëkkati ko te jëmee ko ci yoonu Serigne Touba ak julliti yàlla yi ndax na la leen papa laam bi lu xew ci dëkk bii loxoom a ci. lu xew ci dëkk bi loxoom a ngi fi mënoon naa nekk nag te place ba mu nekkoon ku dee mu yónnee la ñaari saakuy ceeb kon tamit kenn du ko mere ndax na la leen dañ naan teraanga la waaye teraanga bu desee ci dëj rek boo bëgg nit moom bu faatoo moom ay bokk mën na noo dajale loo xam mën na koo togg kon nag Papa nee na mu ngi gërëm ay bokkam ki nga xam ne yow mooy sëriñ Gàdd sëñ Gàdd jërëjëf mbaay gis nañ sab jigéen li mu liggéey gis nañ sab jigéen li mu muñ baam ko gis nañ sab jigéen lépp li nga xam ni fa nga ko digal ak fa nga ko teg ba mu wëlbatiku moom ci boppam tey bis bi fekku fekk boo muñutoon bis bi du fi fekk su nga naan papa lam daa dem bàyyi ma fi gisuma ko wala papa lam joxuma kon lii du la fi fekk ngërëm bala nga koo am dina miti yaa ko wax de yaa ni ngërëm bala nga koo am dina miti waaye nag amul lenn luy neex lekk sax boo ca toppee sa loxo bu yàggee bu ëppee nga wonk ni saa biir bi sonal na ma waxantumaa nag loo xam ni danga koy wut ndax yéen a ko wax yoonu sëriñ Touba la mu gën a mitee miti miti miti booba la gën a neex ñun nag léegi bu mitee ñu daw soo nu dugalee ci yoonu Serigne Touba bu mitee rek nga dégg ku la ni yow daal sëñ bi dina la rey yow mënoo noppal sa bopp nag sëñ bi ñëw nuy si la ñaari yoon ñu ne ah moom di suba gu ne sëriñ bi ñëw nanu am benn lijjanti ñu toog waxtaane ko te di ko réunion mu jëm ci màggalu Touba màggalu Touba sëriñ bi woo la jël ñetti ponkal yoo xam ne ñu nga takk seeni ndigg yóbbu seen ñetti soxna ñu dem bale kër ga ba mu set buy seetar ne ba dem lebloo sëñ ba ay nag nag ca daral ga sëriñ bi lépp andi jaar ci bitig ba ñu leb sable leb ceeb indi dikk teg ñu wëlbati ku ne kenn ku ne waajal sa jabar daggal ko mbubb moo xam ni loolu ñu naa taay godde la xaw ma yuy moom ci boppam fukki junni luyee sa oto teg ko ca ba yegg wàcc ñun la sëriñ baa ngi ci biir nga lem kayitu ñaari téeméer wala téeméer nuyu sëriñ bi waaw téeméer yooyu wàññi leen ko ba màggal gi ba màggal gi yegg léegi màggali nga yóbbu sa njaboot duy sa oto def loo sëriñ bi ceeb def loo sëriñ bi ko attaaye def loo sëriñ bi aw nag dem ma ñibbi nag màggal ga bàyyi sëriñ bi ak bor bi dem bàyyi sëriñ bi bor bi nan leen koy seet sëriñ bi fu mu koy fayee dëkk sàngam de indi nañ ñaari junni dëkk sàngam de indi nañ fukki junni te nag weeg li fi nekk lépp di di ñeent ñetti million wala ñaari million wala un million ngeen indi téeméeri junni man de saab sëriñ ban ko defee damaa lànk dama leen su ngeen ñibbee yéen daay yi ngeen dem bàyyi sëñ bi juróom-ñaar fukki junni bor bi ku koy fay nan leen dajaloo waxtaan kenn ku ne la muy génne nun taalibe yi nañ leen xoolaat màggalu Tuuba defar sa jabar ba mu jekk jël say doom jël sa oto dem loo si la jël sëñ bi sangoom ndoxam maanaam ay duusam fees del oto bi ñëw manga ko ngeen wëlbatiku ñibbi bàyyi sëñ bi bor bi nañ leen ko seet màggali ak loru bokkut kon Papa nee na mu ngi leen di sant te di leen gërëm Pape ñu ngi sant sëriñ bi toogaay bi yàgg na te donga yi da ci am yoo xam ni yow nag bàyyi murit démb daje woon nanu fee booba songoon nan ma waaye man li ma song ñemee naa ko man kuy liggéeyam sëñ Touba ndax loolu sëñ Bas may na ma ci ndigal sëñ Axma may na ma ci ndigal mënuma firi waye amna firi bu may firi bo xamni ci yoonu seigne touba waxtu bu ne ma firi ko kon papa lam ah mënuma wax waye ma mos loolu rek <coughs> bu len ma yóbbu radio Dakar nag mënuma wax bismillah jërëjëf kaddu yi rafetna leer na teguna ci yoon yalla mi meuna fay yalla yalla fay la te guddal fan yu te yagal taxaway bi papalaam sang bu tedd bi cheikh Abdou Mbakke ibnu cheikh Assoufal ibnu cheikh Mouhamadul Basir moom xaadimu rasul moo ma yónni ci yow sëriñ bi nga xam ne moom mii wax na ko léegi lëjalul kenn sonulul kenn bëgg-bëggam lenn képp la jaamu yàlla ak liggéeyal maamam fi mu taxaw ak fi mu teg ab tànkam wallahi bu Cheikh Astou Fall dellusoon jamono tey du defaraat ab toogaam ni mu tooge rek lay tooge Cheikh Abdou Mbacké moomu nag moo ne Bapalaam sant naa la gërëm naa la sant naa say bokk gërëm naa leen maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ak daraja yi sëriñ Touba sëriñ Touba mi nga xamante ni ku ko liggéey mu fay la ku ko bëgg mu fay la yàlla na la Serigne tubaa fay sëriñ baa ngi nii toog moo ko wax. sëriñ bi nee na Pape Lam ku am kóllëre nga te innal ahda kaana mas'uula kóllëre dañ koy laaj ëllëg la fi bàyyi Lamine Lam bàyyi woon Pape Lam da nga koo dundalaat da nga koo dekkalaat te mënoon nga ne ginnaaw bàyyi Lamine Lam dem na. ku ma neex naa ko seeti waaye nee na défaut loola. te yàlla tax te yàlla tax te yàlla tax. Yeah. السلطان مكي بن شيخ محمد البشير بسم الإلهي المغيث আমরা أكبر سرين بسير من رجال كلي دبايم بقتال ميم لسحنا أكبر موت خلاص أكبر ما من جسيه إبرفال moom lañ joxoon maam soxna faal jàmbaar si nga jur soxna faal may maami seex asufaal mbaar si nga buur la Welcome back. مباسط الأغنياء هدي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي وانعم فؤادي عيادي هدي يا كوني بشرى كل من يبوك ولزواج رأى بما عيوب قبل أكون بي طائرا من أزنابي والعفو والعباد قد يدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم يقول لا إله إلا الله قل ولا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di sant sama sëriñ bi Cheikh Abdou Mbacke mu sëriñ Cheikh Astoufal Mbacke mu sëriñ Basir mu sëriñ tuuba mu soxna Astoufal mu Cheikh Ibra sëriñ bi sama xol sedd na man maa la war a sant ndax yàgg naa ak yow te it musuma gis nga toog ba waxtu wii màggalu Touba fa laay nekk balaa huit heures fatu nga buñ la gisatee bët a set ma téye la ba une heure deux heures kon man mii maa war a sant maa la war a gërëm maa la war a ñaanal yàlla bàyyi la ci suñu kanam maa ngi sant Serigne Bass mii nga yëkkati teg ko ci suñu kanam wax dëgg yàlla cant gi lépp moo ko doxal carte yi moo ko defar moo bind la ne ci carte ya lima ci gëna neex moy lamu bind ci yow go sas ni bis ni ki tey sëriñ cheikh astoufal mbàkke dana mel ni bidiw tank ma nga koy mën te diko tal serigne bi ñaanal ma katan fasna yene nga ñaanal ma at mu ne maag sama soxna si ñu sant ko fi nga am wër and ak sa yi ñew teewe ko te bu ci kenn manki man yapp la daan wër di jaay bu màggal jotee may feesaan bu ma ko dajalee ba mu mat ñetti junni ma def ko ay téeméer téeméer ñëw sukk ci sa kanam jox la ko ndax bugguma laa jox lu tuuti ndax mbooloo ma fay toog benn bis ma ne la sëriñ bi am naa kàttan ak yéene su ma sañoon bu nit defee day wax dëgg yàlla su ma mënul genn wàll ga dinaa ko def nga ne ma tàllalal sa loxo ma ñaanal nga ñaanal ma ca déwén sa ma ne la ñaata laa joxe nga ne ma seetal looy joxe àddiyee ma wañu téeméeri junni soog a màggal màggal gu ne ñaari million laay yor dinaa ko def ba mu jeex tàkk te su ma ko mënee yaa tax man lu ma am yow la yaa ma moom yaag sama njaboot man lu ma am yaa ma moom yaag samay doom gëmuma kenn xooluma kenn topp ci ginnaaw kenn yow laay xool foo teg sa tànk ma teg ko fa loo ma sant ma def ko te lépp lu ma nar a am bala yàlla mu egsi ci ma buma demé mak damay ñaan yalla fi ci yonent bi ma ngi lay ñaan sëñ Cheikh Astou Fall njaboot gi mu bayyi kep ku ci soxla dara jëm fi ci man te mënuma ko am bu mu egsi yàlla bu am may sant sama soxna fi tok ndax daf may sant toujours mané ko tay nak dama bëgg nga sant sëriñ Cheikh Astou ndax sant kenn te jiitaluma ko ci dal di bind lettre yeug ci sama patron nako ah, sama soxna da lay sant mu woni million jox la bu la neexoon sax doo joxe ay lettre tere woon naa ko dama ko ne woon bu ko ci def ndax mën naa ko waaye nag am na noo xam ne soo ni bindoo boo ko defee danu naan xëy na danoo am kàttan doole ak mën-mën moo tax ñu bedd nit ñi waaye konte wuñu woon nag ci ay lettre yàlla may nañu nag wax dëgg yàlla lu nu ko defee ndax Cheikh Abdou mii am na lu mu def ci ñun Mbàkke dëkk bii rusuma fee dox rusuma fee teg sama tànk su ma demee ban di ma gàrde wala ñu di ma xool wala may dawali 4 x yow mii la man xamna kan la xamna fi mala fekkon xamna fi nga ma indi ak xamna fi ma toll te gëm ni man ci kanam rek lay jëm man awma lu may tiit xalaatuma dara dara dara serigne bi man gem naa ni def nga ma ci milliardaire serigne Touba yi barke Cheikhul Khadim barke serigne Basiru man xamna naa janguma dara xawma nu ñuy bindé xamuma ko utuma ko xam man yow la xam sa buma la gisee buma la tanlé sama loxo rek nga ñaanal ma bu mu jugee lu wuti am ko bo gisee buma la gisee rek joy dama xam fi ma fekkon ak fi ma indi ma ngi sant gossas ñepp di gërëm ñepp di sant sama soxna ak sama doom sama raq yi nga xam ne ñoom la ma yàlla ngi ñaan yalla jubo leen ñu top ci sama ginnaw ma am kattanu di leen dimbali ba aduna bepp tek seen bët di leen ñaan bu ma demee ba tële ñomit ñu mën ma yor sama njabot aw leen te bo leen ñu may ñu jamm ñun ñepp sëriñ bi santati na la bu baax mbàkke sama xol sedd na guy ndax li tax sama xol sedd musuma laa gis nga toog ba waxtu bi man xam naa la bu baax dara loo xam ne du yàlla ñoru la dara loo xam ne du yonent bi ñoru la lu dul diine xamoo ko jàng sa alxuraan jàng say xasida doo génn bokkoo ci sëriñ yi wër kër jàmbur yi ba ma dëkkee fii ba tey mosoo fee teg sa tànk sa benn raq mosu fee ñëw sëñ bas mi moo fi jaar léeg-léeg léeg nuyu ma continuer bu ma ko nekkaay toog su ma bañ te su leen neexoon ni bind may leen sax di ma laaj addiya te fort su ma joxe ko waaye liñ may wax mooy liggéeyal jaamul yàlla loo am dimbali doomu aadama yi ñëw doole ci lool la tek sama tank ma ngi lay ñaanal lo man ren yalla na la yalla may katan ay ati ati at nga may fekk fi maag sama soxna ñuy sant sëñ Cheikh Abdoulaye Mbacke mu sëriñ Basiru sant na la bu baax Mbacke jeere ngeen jëpp wa gossas jeere ngeen jëpp contane naa ci ñëpp maa ngi sant samay goro di sant ñepp bàyyiwuma kenn kep ko xamne na tuduma la rek jappal ni rek dama joom waye sama xol sedd na guyu ki yeen jeere ngeen jëf amin barke borom amin amin barke borom amin amin barke borom amin amin barke borom amin amin barke borom Amin. amin amin amin Amin. Amin. amin amin amin amin amiin barke Borom Tuubaa amiin barke Borom